publication li si ñëwal élection législative yi génn na place yi baax yi gisuñu ci doomu Grand Yoff Abdoulaye gisee li ñu mel ak ñàkk liggéey ci leaderu gox bi. est-ce que Grand Yoff du dul dañoo desee liggéey rek. man de loolu moo moo ci sama gis-gis moom sama yaakaar wax dëgg yàlla. Grand Yoff euh, dafa popolé wax dëgg yàlla élection yi dañ koy soxla kon suñ demee ba doomu Grand Yoff vraiment nekkuñu ci kaw ndax nekk ci suuf ci ma gis-gis daal mooy moo def. bu ñu sukkandikoo ci Jibi Fall ñàkk am position bu baax bi moo xam ci liste Yewwi Askan Wi wala bu Benno yaakaar ci doomu Grand Yoff bi li ko waral di lenn lu dul ak ñàkk gëm seen bopp. Euh, Grand Yoff dañu nanguwul gëm seen bopp jël seen responsabilité. jeunes Grand Yoff yëpp ak en général ndax. ndax jël rek seen bopp euh, takk ci buum rek jox nit ne ko yóbbu ma jox ci buum ne ko yóbbu ma alors fu ko neex mu yóbbu la mais góor la ni yow bi muy ñëw loxo neen la indi sol yére lii mu am yëpp teraanga yu mu lijjanti ci àdduna la mais defal ni moom te bañ di wéeru ci moom accompagnement nag am na ndax learning by doing bu fekkee ni kii moo la jiitu tiim la fii yow nga ñëw bugg a tee dem ànd ak moom di gis ni ñuy defee ni ñuy waxee ni ñuy doxee di ëllëg si nga maîtriser boo maîtriser nag imposé wu loolu la ñàkk si gën seen bopp. poids électoral bu am solo bu Grand Yoff am waaye politique yi di xëccoo place yu baax yi gisuñu ci doomu Grand Yoff doon lu askanu gox bi di ñaawlu.